ñenteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi bi waa Israël di jóge misra xeet wu yaa lañu woon yàlla jiite leen won leen yoon wi ci bëccëg gi mu jiite leen ak benn niir ci guddi gi mu jiite leen ak benn tàkk-tàkk ba mu amee ay fan waa Israël agsi ci géej gu xonq ga ci diggante bi firawna rëccu li mu bay waa israyil ñu dem mu dajale ay xarekatam dàqi waa israyil bi leen waa israyil gisee ñu daldi tiit ñu xultu ci yàlla ndaxte gisuñu woon fenn fu ñuy jaar ba rëcc noonu yàlla xar géej gi ñaar xàllal leen yoon wu wow wu leen jàllale ca wàlla waa israyil jaar ci suuf su wow ba jàll géej gi waa misra topp waa israyil yàlla dajalewaat géej gi waa misra ya lab bi waa israyil gisee ne ci kàttanu yàlla dañu muccee ci seeni noon ñu ragal yàlla ñu am mbégte di woyaka fecc ngir màggal yàlla fii la nettali bi yam léegi ma laaj leen fukk ak ñett naka la yàlla musalee waa Israël ci Firawna dafa xar géej gi waa Israël jàll fukk ak ndax mën nga mucc ci atteb yàlla ci say pexe ndax mën nga def ba mën a taxaw fa yàlla déedéet yàlla rekk mooy maye yoonu mucc gi